jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax comme ni meen ko waxee rek saison bi tëj na mais euh, mbër xanaa peut-être ñenn ñi ñooy noppalu mais ñu ñoo ngi ci terrain bi di liggéey ba léegi tey maa ngi fii seet si ki nga mooy promoteur bi mag bi muy Fallou Ndiaye ñu seet si ko bëgg waxtaan ak moom ndax mbokk yi euh, bilaa làmb ci jéeg léegi ku ne xam ne ni bari na fi événement yoo xamante ni tëgg na ko tëgg na fi ay gala yoo xamante ni peut-être ay journée boo xamante ni mën nga génnee cinq grands combats wala six grands combats da koy faral di ko boole di ko tëgg ci benn journée yooyu yëpp bëggoon nañ ci waxtaan ak moom ak ci journée yi nga jot na koo jàll ndax mbokk yi saison bi tëj na mais ñoo ngi gis jéego yi nga xamante ni koy def di jëm ci saison bi nga xamante ni moom lañ jëm ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi Fallou nuyu naa la waaw ñu ngi lay fay jàmbaar hmm. di jox sa wàccuwaay bu baax di nuyu mbokk internet yëpp hmm. surtout ñi am na ne ñu ngi suivre wasaare hmm. di nuyu waa wasaare yëpp di nuyu Basiru di nuyu Baye ji di nuyu baax a baax dem mbégte tamit ci dalal bi nga ñu dalal Euh, su ma la su ma lay laaj kan mooy Fallou Ndiaye dama lay laaj kañ nga dugg si ci làmb parce que ñu ci bëri xam nañu la mais euh, bu ñu gisee ni ngay doxalee ci biir làmb dañuy xam ne doo gan ci làmb kañ nga dugg si ci làmb. waaw làmb nag yaakaar naa xam nga kuy féete 15 ans ren. Mm-hmm. yaakaar naa kon def nañ 15 ans de carrière ci làmb kon mm-hmm. yaakaar naa yàgg nañ ci. Euh, lu bari fekk nañ ci ndax ñun avant làmb amateur lañu woon. Mm-hmm. avant amateur dañ doon dem di organiser ay mbabat. nekk ci banlieue bi Pikine di organiser ay mbabat fu doon ànd ak booy di entraîner comme mbër mhm. di contact def lép comme li mbër yi def ah mhm. amul bu am bopp moo ñu topp ba ñu war a ñëw tey pour organiser lamb bu jógee ci Bapal yi ne nag pourquoi wun ñoo dem arène pour jàppale suñu rakk yi ne ñoom lañ doon àndal ci Bapal yi mhm. yaakaar naa loolu moo ñu dugal ci lamb kon yaakaar na yàgg na buñ xoolee ay deux mille ay 2007 jëm kaw lañ dugg ci làmb waa léegi suma jumur yàgg na def na ay temps bu xaw a yàgg def nañ temps ba xaw a ku dégg ni nga waxee sa paaku xam ne euh, nitu làmb nga te bëgg nga làmb ren euh, bi saison bi tijji na ba tëj ñaata journée la fàllu tëgg ci saison ren bi. waaw non saison ren bi ñu def nañ sept journée. sept journée ndax ñun yaakaar naa sax année dinañ def sept journée wala huit des fois ñu def six. Mm-hmm. bu yéesee ba yées nañ def cinq journée. Mm-hmm. ndax suñu objectif loolu la ñun dañuy promouvoir espoir yi. Mm-hmm. fexe espoir yi ràññeeku ba nit ñi xam leen. fexe espoir yi tamit. nekk ci yenn niveau yi te yaakaar naa loolu ñu ngi ci yàkkamti ñu ci gaaw duñu ci nag mm-hmm. toujours suñ philosophie mooy xool combat espoir yi baax yi ñu organiser ak espoir yi nga xam ne buñ jógee seen gox yi jóg mm-hmm. ñu xool ñu def pour jàppale foofu dinaa foofu sax dinaa fa ñëw ndax dañ ma faa jiitu ci espoir yi nga xamante ni buñ jógee seen gox jóg mais euh, chaque jour dañuy gis boo boo tëggee journée rek ñëpp dañuy kontaan ndax dañuy xam ne fàllu choix bu baax bi lay def sa diggante yow ak mbër yi lan la waaw mbër yi suñu relation dafay dem ba day weesu làmb ndax mhm. tey ñun du ñu tëgg mbër bi rek bàyyi ko noonu mhm. en général bu ñu tëggee mbër bi dañ koy suivre carrière am xool jaar-jaaram di waxtaan ak moom vraiment di numéro moom di mbalak di kaf dem lante dikkalante ndax ñun amul benn mbër moom nañ xewal ni la sa dara mhm. bépp mbër ak mbër bi ñu mën toll suñu wooyee ci yëfam wala mu woñ ci bisam dañuy bàyyi suñu té yëpp déplacé wu dem fekki ko ci kanam ay mbokkam ci kanam ay nawleem seq ak ñoom jàmm wanewu ñoom seen diggante ak ñoom ay promoteur ak mbër dañoo gis ne mbër bi euh, promoteur bi casquette la boo xam ne nii jour événement jour làmb rek la mhm. mais bu jour làmb bi jeexee nit ki mooy ñëw commerçant bi mooy ñëw businessman bi mooy ñëw kooku nag daa war a mën a dalal ñëpp wax ak waxtaan ak ñëpp en tant que sénégalais mais duñu bokkuñ ci promoteur yi nga xam ne ñoo defeeru promoteur lañu mhm. yéegal niveau bi tuuti non ñun dañuy wàcc suñu niveau comme ñëpp di kaf ak ñoom di ree ak ñoom peut-être loolu moo tax affinité bi ñu am ak ñoom ñaam ko bu ñu leen dëggee ñoom dañuy yéene pour bis bi gën a ñoom ñoo ñuy gën a yéene bis bi réussir nii ñun sax ñu ko dëgg hmm. da ngay gis ñuy jaayante di def luñ mën ak luñ mënul pour bis bi am résultat daal hmm. loolu nag wàcce suñu bopp gi ñu wàcce suñu bopp la mën a jëflante ak ñoom rek la mais bu ñu yëgaloon suñu bopp it dañuy def comme ni ñuy def ñëpp rek hmm. pour dëggal loolu ngay wax man mii des fois ma woo ci benn mbër mënu ma noo wool fàllu te pourtant Fallou du ménager am jegewu ko mais euh, comme li ngay wax yëg bi ñu am ci yow wala boog ni ngi leen di jegee moo tax lu ñuy def ak dañuy bëgg nga yëg ko mhm. mais su may su ma su ma génnee ci loolu su ma ñëwee ci bilan bi nga xam te ne jot nga koo def mhm. bi saison tijjee ak bi saison tijjee ndax gis nañu des fois nga tëgg benn journée dugg ci quatre grands combats wala cinq grands combats mhm. est-ce que loolu du du du comme ci ni ko gars yi defee gars yi da ngay gis ku tëgg benn grand combat ndaw mais ñu gis boo tëggee benn journée dugg ci cinq mbër Euh, des fois du du du nekk pertement wala du du du munu munu munu nekk daal maanaam dajaleel daal dugalandoo ko benn yoon. waaw ñun nag euh, boo gisee loolu mooy ñun lépp ñu doon ko étudier. Mm-hmm. tey bu ñu gis ne journée bi mën nañoo jël cinq mbër yi cinq combats ni war nañoo mën a nekk niveau grand combat ñu boole leen. Mm-hmm. étudier nañ ko ba xool budget bi. Mm-hmm. dina méngoo ak li ñu war a am stade. bu ñu calculer ba étudier ko ba ba mu nañu rek lii mënuñu ci am pertement mënuñu ci am dara rek. dañuy daal di engagé wu. mais suñ ko dijee gis ne bu buñ ci duggee mën nañoo indi benn gàllankoor rek dañuy daal aleeraat hmm. tey làmb bépp ñuy tëgg ci ñun dañ ko étudier moo tax hmm. dépassé nañ fu ñuy tëggee làmb di ci perte hmm. dañ def suñu étude xool bu baax étudier ko xool làmb ji lan la laaj xool mbëri lan mooy seen capacité ndax làmb léegi ku ne xam ne sponsor demeetul noonu ci li nga yaakaar mooy billet yi comme ci billet yi nga yaakaar nag bépp mbër booy étudier boo booy mbër booy tëgg ko étudier ba xam capacité la toll ci côté mobilisation ba nga xam ne tey boo échec ci événement boobu ñaari mbër Mhm. te ñooñu mënuñoo tax nga perte loolu moo waral ñuy def lu mel noonu. Euh, soo defee bi nga defee sa bilan ba saison bi tijjee ak ni mu tëjee gannaaw fi mu toll nii moom. Mhm. saison bi tëj na waxuñu waxi dem tëgg làmb waxuñu waxi si daan làmb da ngay toog def bilan calculer. Mhm. bi nga toogee jàngat. combat yi nga a tëgg. ak bi saison bi tëjee ak léegi est-ce que perte maa am na ci. non perte moom amu ci ndax ñun làmb comme li ma la wax rek nañ léegi fu ñuy dëgg làmb di perte. bu ñuy dëgg dañ ko étudier xool baax la lañ ciy duggee ak lan lañ ciy génne ba nga xam te daal lépp luñ ci def jàpp ne nañ ko génnewaat mais hmm. dëgg lamb li perte moom xalaatuñ ko kon dañuy jàpp ne saison positive lañu def toujours saison positive la def ndax bépp lamb ñu tëgg dañ koy étudier xool lan lañ ci mën a am buñ ci mënta am dara duñ ci dugg saison bi ñaata combat nga jot a tëgg saison bi di ñëw ñaata journée nga prévoir wala boog ñaata nga xalaat te saison bi di am nañ trois journées ndax tey am nañ caatu yoof bi désert mm-hmm. am nañ combat bi nga xamante ne nii mooy euh, Girosea Njaaytin am nañ ki nga xam ne jeex jàmm lay nekk ak euh, Aliou ak kii jeex jàmm lay nekk Ibou Afia mm-hmm. boobu incha allah le 2 octobre bi la incha allah xanaa boobu Ibou Maar la waaw Ibou Maar le 2 octobre ah. même pas un mois dix jours incha allah dañuy saison ñun euh, ndax parce que bëggoon naa jàll sax mais damay ñëw ci diggante Njaaytin Girosea parce que gis nañ kii di Girosea dugg na Bawol daan na Nokia ñu ne déete waaye mu jël tonnerre daan ko ne dee du ma génn bawol dama leen a bëgg a jeexal mais ñu gis ne amu fa adversaire mais kuréel kut li làmb bëgg dañuy gis ne da nga koy faral def ndax avant boobu sax doon nañ dégg Géo Séas ak Mao Kankan mhm. daanaka boobu sottiwul nga andi njaayitin euh, Géo Séas la ma war a choix bi foofu est loolu tamit xawul diis tuuti ci Géo Séas ñu si bàyyi nag nee nañu est ce que diisul mais njaay day bëgg chaque jour laaj mu forcé ko jox leen ko benn yoon. waa mais xam nga tey Guiro Séras boo gisee maa mujj a ko tonnerre de. Mm-hmm. dafa daan tonnerre gars yi ne ko la mu ne Ndiaye Tine moo des wala Mor Kankang. Mm-hmm. comme Ndiaye Tine moo des wala Mor Kankang ah Mor Kankang dañ ko aj trois ans dañ ko aj trois mois. Mm-hmm. Ndiaye Tine mooy disponible. alors ñu ne nañ jël Ndiaye Tine Guiro Séras. am na promoteurs yu bari yu ko bëggoon mais xam nga ñun toujours ak suñu expérience rek xam nañ fi jaar xam na yan moyens la génne. mais mais mais mais do démarche bi metti woon na trop tamit. non pas pas tellement man. làmb wala yomb na ci yow. waaw man làmb moom <laughs> démarche mbër du metti ci man. c'est-à-dire oh. man su metti rek maa ko bëgg a mettil mais su fekkee raisonnable naa rek du metti ndax mbër samay xarit lañ ñeneen ñoo samay xarit lañ kon yaakaar naa <clears throat> lépp ma bëgg ci ñoom war a jafe. Mm-hmm. man ñaari fan laa ko démarché mu sotti. deux jours deux jours te yaakaar naa sax mu deux jours. lan ngay bala léegi dama bëggoon kii mais lan ngay lan ngay lan ngay ñaaxee promoteur yu saison bi ci yéegul gis nañ promoteur yu bees yu bari yoo xam te ñoo ñu dugg si ci làmb naka nga leen naka nga leen conseil boo amoon conseil boo leen di jox lan ngay wax parce que des fois nag nga a yokku mais loo xamante ni bokk ci ba des fois sax day xaw a yàqal nga xamante ni nii dañoo bokk ci biir làmb lan ngay lan xam nga làmb hmm. ñun biñ ci doog dugg la gën na metti hmm. ndax ñun biñ ci doog a dugg dañ doon tëgg di perte Mm-hmm. mënuñoo na am dimanche mënuñoo na am samedi ay vendredi ñu tëgg ay mercredi yi ngeen xamul mm-hmm. léegi nag làmb dox na ñun ñu xeex loolu ba ñun ci man ci ñu xeex loolu ci laa bokk ba promoteur ak promoteur man doon mën naa am samedi mën naa am dimanche ndax mm-hmm. ma ñëwee man parce que bokk naa ci ñi fi jëlee loolu toog ak CNC xamal na leen licence licence la promoteur promoteur la comme mën nañoo ay dimanche mën nañoo am ay samedi ñuy xam li ñuy def rek bañ a ëppal ndax làmb boo ci ëppalee muy man ak sama a am toujours da ngay nekk ci Mhm. ndax foofu mu xaalis la te lu dugg du génnaat te mën ngaa tëgg lamb investi ay million dem ca gisee ba jaay fa un million wala de million mhm. loolu perte ma mënu koo rëy kon dañ leen di wax ne ñu daal jàmm xool li ñuy def bu baax ànd ak ay boom xam-xam ñu jàppale leen ci li nga xam ne moom la ñuy yëngu ndax lamb dafa metti te perte ma xaalis dafa metti ci ñëpp mhm. ku perte rek da daal di am difficulté da ngay daal di am lu metti boo jëlee sa jox ko mu tëdd di nelaw nga tëgg perte kooku moom day metti day gën a metti waaye day metti hmm. trop te xaalis bi day yàgg circuler ba pare nga jëlee ci pertement day metti hmm. kon ñu leen wax ñu xam li ñuy def rek te teey am na solo saison bii nga jàll ban combat nga ci tëgg cee gis sa bopp mu gën cee neex ci saison bi nga génn waaw sama ma génn nag combat neex vraiment combat yi hmm. am na bu ci daax am na moom tamit koom-koom bi moo moo gën a bari waaw boo xoolee tey Ada Fass Jokkel Ada Fass Tapha Mbeur Ada euh, Fass Jokkel Ada Fass Tapha Mbeur Mm-hmm. Euh, ñoom Alioune Seye junior Mor Kankan ay journée yo xam te ne journée neex la Mor Kankan tamit ak euh, Dabdaan. Mm-hmm. Bamar waaw. Euh, combat yi ba neex ndax mën nañu. Giro xaalis. yëpp am xaalis ah. non ban ban ban nga ban nga génn nga calculer xam ne tey moom tey li ma jaay ci. billet bi ma jaay ci billet tey bari na trop. non. yaakaar naa yëpp ah yëpp jaay nañu. Ah. yëpp jaay nañu. na <laughs> ngeen a lim daal. waaw mais sérieusement yëpp jaay nañ te yëpp neex na. xam nga hmm. ñun moom comme ni nga ko waxee rek toujours dañuy fexe satisfaire amateur yi. Hmm. fexe lu leen di bégal moo tax toujours dañuy indi plateau yoo xam ne plateau yu lay nekk. plateau bu riche nag boo ko indee force lamb ji neex force amateur yi ñëw wuyu si. Hmm. te amateur yi mënoo lamb ñu ñëw seetaan si la yow yaay tëgg lamb rek def annonce bi ñu xam ne au moins la. Mm-hmm. ñu bàyyi seen yi tepp ñëw mais su fekkee ne du lamb qualité duñ ñëw ah mm-hmm. luñ xaytoo xaytoo yow luñ seq yow relation duñ mën a ñëw ndax lamb ñu ngi leen du lamb qualité mm-hmm. moo tax souvent dañuy bëgg di tëgg tout le temps lamb qualité waaw ah, buñ fa jógee tamit Sarko à Dafas ku ne xam na ne ñu ngi ci ànd suñu kilifa muy Pape Abdou Fall mu war a nekk le quinze janvier incha allah boo xoolee tey euh, euh, kële caatu yara caatu yoof ak bi désert la mais Zarko Zarko à Dafas Zarko Ada Fass ñu ci bari nee nañu euh, Zarko est-ce que teelu mu may revanche ñu ci bari itam nee nañu est-ce que du risque ci Ada Fass parce que Ada mu mënoon naa xool beneen yoon bu mu jaaree bu dul jaar ci Zarko ak Zarko guddi yi mu toll fi mu toll nii. waaw amee Ada xale la amul risque du jël risque xale du jël risque comme ni ko mbër yi waxee rek. Mhm. Euh, Zarko tamit daan Ada Fass da koy yóbbu ci beneen palier ndax Ada dafa nekk ci espoir yi gëpp coow actuellement daal di boo jógee ci combat bi mu jógee ñaari combat yi mu jógee ñëw jël Ada Fass moo lay wane Sarko am na lecture de jeu. xam na fu muy mhm. teg tànkam. Mhm. tey su fekkee dafa génn ci Ada Fass ak ndam da koy mën a yóbbu ci niveau bu kawe kawe kawe mhm. euh, su fekkee ne da cee ñàkk du ko yàqal dara ndax Sarko ku ne xam ne lutteur la boo xam te ne nii double latin. nit la koo xam te ne nii dafay suuf làmbam day daal di neex am ambiance am suuf surtout suuf bi. gars yi dañ ko ciy xaar. kon amulum ciy perte. Mhm. Ada Fass tamit xale la bu ko Zarko daane day dem defaruwaat bëriwaat ay moromam mhm. ndax bàyyi na ay moromam ñoom ñu bëreegut ak ñoom tey bu ñàkkee Zarko day ñëwaat rancé waat ci ay moromam rek lan moo tax des fois dañuy gis gars yi ñuy tëgg comba grand contre mais chaque jour de lay gis ngay bëgg combat choc parce que Bulldozer ak caatu yaar caatu yoof tamit defe naa ne làmb mënu koo gën a metti ndax bokk nañ ci xale yi te ni ñoo gën a ës ci nga boole leen la moo tax ngay bëgg combat choc yi di leen dajale waaw man bu ma wooyee ne ma dama naan la carrément <laughs> moom tugguma ay xale ki paa su mm. fekkee bëgg nga sa morom daal ñu mm. waxtaan man sama philosophie loolu la gëm ndax xam naa ne làmb pour mu neex il faut nga boolee ñaari naataango mm-hmm. mooy tax mu neex mais boo booleelu ñaari naataango du neex mm. moo tax tey ñu indi njaay din kilo séerage ñaari xale lañ ñaari espoir lañ mm-hmm. ñu indi ki nga xam ne mooy jaadu yof bi ay naataango ay xale Mm-hmm. tey boo xoolee combat bi taxaw nii muy Ibou Afia ak ki nga xam ne mooy jeex jàmm. ay mm-hmm. espoir lañ ay naataango mm-hmm. lañ. alors dañ jël tamit xale yi nga xam ne ñooy kere mu làmb ay ñoom Fils de Lirou ay ñoom Boy Diop ñoom ñëpp incha allah rabi foofu la ñuy bëree. incha allah ndax ouverture boo am solo lañ bëgg a def si ñoom Iba Mar Diop pour wanewaat ne làmb ni mag ñi mën a feesal Iba Mar Diop xale yu yi mën a ñoo feesal Iba Mar Diop. toujours du même gëm yi ci xale espoir yi. soo doon wax gis nañ ci yenn mbër yoo xamante nii dañuy bëre dem ba ci biir mais dañuy am problème mu adversaire te nekk ci mbër lépp da koy gis ci ñoom mais après dañuy am problème adversaire am problème mu bëre. lan ngay wax yenn mbër yi. mais li ci bari nag mooy tànn la ak euh, staff bu compliqué. Mhm. mbër yi suñu bëggee bëree nañuy oyofal promoteur yi seen diggante ak ñoom. Mhm. mais su fekkee da nga am staff moom dafay compliqué rek toujours yow mbër bi. sa pertement lay yokk ndax promoteur bi bu la contacter tey jotul dem contacter mhm. a mhm. ba nga xamante ne ñoom nañ bëree ndax tey promoteurs yi amuñu tànn kii bàyyi kii mhm. mbër yëpp lañ yemale ndax mbër yëpp suñuy frère la ñii suñuy doom lañ kon tey mbër yëpp lañu war a mais des fois dañuy bëri yoo xam ne seen staff day compliqué pas tellement ba yow waxaale leen sax doo ko bëgg a def ndax complication bu bëri te promoteur yi mënut que lu mat un mois wala quinze jours day hmm. euh, su ma su ma doon ñëw su ma bi mooy seen diggante ak CNG des fois am na détails yoo xam ne yu ci bëri CNG da ko yëkkati teg ko ci ko mbër mi wala CNG yitti ko ci ci biir organisation bi day xaw metti lan nga gis ci CNG loo xamante ne tey boo soñoon wala boo amoon sago

ñoom looloo tax ñu teg leen fi dañ leen fee teg pour ñu organiser pour jàppale promoteurs yi pour jàppale mbër yi mais teguñu leen fi rek pour ñuy dagg ak pour mbër yi mer yi mer nañu xool na oyofale gars ba nga xam ne ñëpp nañu ci mën a gis seen bopp hmm. gis ngeen mbokk yi tey kii Fallou te moom leen seet soon bëgg a waxtaan moom ci làmb defe naa ne kàddu yu leer na soo amoon kàddu yu mujj lan ngay wax waa mbégte kontaan rek di ñaan yàlla saison bi ñu ubbi ko ak jàmm hmm. vraiment moom promoteur yëpp liñ ci tëgg ñu am ci résultat hmm. gis ngeen mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon ci Wassare Lamb kontaan nañ ci yow baax a baax jaajëf.